c'est bon bismillah kon nag euh, mbokk yi journaliste yi ban ban kon nag euh, mbokk journaliste yi ñu fas yéene door suñu waxtaan li ma koy dooree mooy damay baamtuwaat li nga xam ne président Déthié Fall wax na ko keroog ci suñu assemblée populaire bi di leen massawu ci li nga xam ne daloon na ci seen naataango bi nekk TFM di leen ko masawu bu baax di ñaan yàlla suñu boroom lu mel noonu yàlla bu mu amanti ci journaliste ci ndaje yu mel noonu parce que du suñu mébét su loolu woyee waxtaanu tey wi li tax ñu woote ko li ci ëpp solo mooy kii nga xam ne mooy président Déthié Fall di mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi dafa am loo xam ne moom la leen bëgg a xamal ngir ngeen jottali ko askanu Sénégal yëpp dégg ko rawatina suñu diggante ak ministère de l'intérieur moo tax suma paree moom laay jox kàddu gi bu paree ñu jox ko président Cheikh Tidiane Youm nga xam ne moo fi toogal Serigne Moustapha si bu noppee danañ jox ñi nga xam ne ñooy ndaw yeeyu askan wi ñoom it am kàddu yuñ ci sànni balay boobu maam tuuti kàddu yi rek yoo xam ne bëgg naa ko fee wax gannaaw ba ma joxee ngantu Khalifa Ababacar Sall nga xam ne mooy président de la conférence des leaders am ay yitte yoo xam ne moo ko teq ngeen ko daan gis fii di jox aussi ngantu président Ousmane Sonko parce que actuellement comme mooy maire Ziguinchor ma nga ca bureau ba ca liggéey ba ak ngantu présidente Aïda Mbodj ngeen xam ne toujours daa ngeen ko fekk fii ak yeneen leader yoo xam ne mënuñ koo fekkee ma bëgg rek bala ñuy sori ñu am lu ñu fàttali tuuti parce que fàttali dafa am solo ndaxte doom aadama yàlla da koo bindee muy fàtte te réew mi fi mu toll am na loo xam ne li il ñu di ko wax di ko waxaat nit ñi di ko dégg xam fa ñu jógee fan la ak fan la ñu jëm dama déglu fan yi Cheikh Tidiane Serigne Moustapha si def naa kër jëmb la ko waxee mu wax lu am solo mu ne ñaari feebar ñoo am nee na am na feebar boo xam ne bi nit lay rey jabet bu la dalee nit lay rey cancer bu la dalee nit lay rey tuberculose bu la dalee nit lay rey waane mu ne feebaru kàddu wax ak feebaru jëf société lay rey wax ju rëy la wax foofu te boo seetee ñun li nga xam ne ñu ngi koy xeex boobu ba léegi jàmmarloo ak kii muy gouvernement du Sénégal Macky Sall jiite ko mooy day jëf ak wax loo xam ne lii day feebar askan wi feebar réew mi te mën na koo taal fukki at yi nga xam ne moom la fi toog boo xaymaa lu mu gàtt gàtt wax na fi walla mu jëf fi loo xam ne lii feebar na senegal yëpp ba mën naa taal réew mi gis ngeen bi nga xam ne mu ngi soog a toog dafa dugg ca pale ba rek dal di xotti worma président Ablaye Wade ne ko da danga da ngaa randal ay oto yoo xam ne moomuloo ko nga yóbbu ñu gëstu ba sonn gisuñ dara ci kilifa gu toll ne Ablaye Wade ak li mu liggéeyal réew ñu yaakaar ne foofu lay yem muy mu ne xaaral ma ñaareel ñu ne ko ban la mu ne léegi jàppale nañ ma bu ma falu waane maa ngi leen di biral ne sëriñ si ñoom ak citoyen ordinaire ñoo yem ñi nga xam ne réew mi ñëpp moom lañu ñu yàgg ñoom la yaakaar te wolof yi nee nag bu ñëpp yemee am ñu gedd seen cër parce que am na ñu baax am na ñu bon te ko nekk na nga bëgg a baax loolu waxu feebar ci réew mënu koo weesu ñu ne ci démocratie la ñu nekk mu ne ah man de loolu toppatoowuma ko yéen opposition danaa leen manq manq manq ba ngeen toll ne bantu bale réduire leen à votre plus simple expression est-ce que loolu du violence ñu ne déetawaay mu ne am na ñoo xam ne nekkoon nañ ci nguur ab lay Wade dañoo sàcc xaalis waane waxul nu mu ko sàccee mu bind ñaar fukki nit ak juróom ne ñii danaa leen topp ñu yaakaar da koy def mu dem seet ci kenn muy Karim Meïssa Wade ndaxte doomu Abdoulaye la te yaakaar na ne Karim mënoon naa delsi ci réew mi mu bund xotal ko tëj ko kaso ay at loolu doyut mu jaay ko doole génne ko réew mi est-ce que loolu du violence na fitna cim réew ñu yaakaar ne lay yem mu ne xalifa Ababacar Sall mii su ma ko bayee sama kow lay jëm ndaxte meeru Dakar am na doole mu ne kon naa def ay pexe ba faagaagal ko def ay tappalem moom ak waa justice ñi koy jàppale tëj ko ay at yemul foofu mu ne ko dootoo wate dootoo bokk ci wate est-ce que loolu du violence Barthélemy Diaz def appel pour procès lu mat fukki at booba léegi Macky Sall téye ko li ñuy wax épée de Damoclès ne ko doo yëngatu pour xaj ko cëram ci réew mi ñu yaakaar ne foofu lay yem mu ne xale bii di soog a judd mu Ousmane Sonko ci politique askan wi topp ko su ma ko béyee musiba dana am danaa ko complot pour ni ma def xalifa Sall ni ma def Karim ma def ko ko waane Sénégal ni ko loolu du am est-ce que loolu du violence fan yi paase suñ aada suñ cosaan suñu baax am loo xam ne nanguwu ko te da ko nangu ba àddinay tukki mooy boroom ñaari tur yi ay kilifa yu baax jóg jël bind kayit def proposition de loi jox ko député yi ne ko lii dañoo bëgg nga wate ko pour que ñaari tur bañ a am suñu réew mi dégluwu sax loolu bu jëyee amee kan mooy responsable ku dul Macky Sall est-ce loolu du violence parce que loolu peuple bi bëgg ñuy dem élection locale wote maire yi ngeen gis li fi xew lépp mu jël suñu alliance suñu coalition yeewi askan wi boo ànd ak koy ay ay ay ay préfet ay sous préfet lu tolloog fukk ak benn fukk ak juróom benn département ñu xañ suñu liste nangu ko ki nga xam ne kii moo dabak suñu liste ba feeca maatam ñu di wax Jibril Ngom yéen ñëpp ngeen de teg seen bët mu war ñu war askan wi war àdduna moom mag Macky Sall recevoir ko palais photo fang ñëpp di ci teg bët est-ce que loolu du violence est-ce que loolu du fitna ñu ñëw fukkeel bi nga xam ne fitna ñu ne dañuy dem élection député ngeen gis liñ ci daj yëpp ñoom de ci faal fi ñu jaar def suñu investiture ba yépp mat mu ne déedéet yéen waa yeewi askan wi gis naa li ngeen xam ne moom ngeen taxawee woon ci élection locale yi su ma leen bayee ngeen faagaagal mba ci léegi député yi kon tiisu bi ngeen ma jox pour ma ñawal leen ko ngeen dem ca ndajem député ya tubéy dong laa leen ci ñawal du ngeen ci am yére du ngeen ci am mbubb noonu la xaaje ne ñun suñu élection pour ñu dem ca suñu liste suppléant mooy dem list majoritaire du dem est-ce que loolu du violence mais boobu ba léegi lan ngeen dégg ñun en tant que opposition ñu def ko jéego walla teg ko wala wax ko loo xam ne lii liy taal réew mi mais nous s'oppose nous résistons par rapport à ces agressions moom laa leen limal léegi te li ci gën a tuuti la fukki at limal naa leen fukk yoo xam ne yi jéye Macky Sall def na ko te mën naa taal réew mi alors dégluwul sëriñ dégluwul société civile dégluwul journaliste dégluwul opposition xam naa ne bu yàggee tuuti sax na yaayee jàmme defoon parce que yaayee ba mu demee ba yëg doolem xam moo xam ngeen ko xamul xamu leen ko dafa dem ba ne lay changer constitution bi pour ñu fal ko buur bu duggutoo nag ñun ñii li ñuy def di résister en tant qu'opposition Sénégal tey mën naa àgg foofu kon ñu bëgg nit ñi yéen askanu Sénégal ngeen xam li nga xam ne moom la ñuy xeex te mu jaral ñu lu nekk la li nga xam ne moom la ñuy bañ te mu jaral ñu lu nekk parce que injustice képp ku koy xeex yaakaar naa ne ñun ngay dimbale wala Sénégal ci boppam ngay dimbale loolu baaxoon na je pense ñu fàttali leen ko ba beneen jamono am yoo xam ne danañ ci dikk mais tey kii nga xam ne mooy suñu mandataire Déthié Fall moo bëgg a dikk ak yéen nag ci beneen jéye boo xam ne bii Macky def na ko te loolu tim bokk na ci li nga xam ne mooy indi na ak violence ci réew mi te yàlla seede na ñun nitu jàmm lañu kon nag président Déthié je vous donne la parole et après sera au président Cheikh ah il veut pas qu'on l'appelle président lui c'est bon. Ah, non mais asalaamaaleykum ñu nuyu mbokk journaliste yi fii nekk di nuyu sénégalais yëpp ku nekk fa nga nekk ci biir réew ak ci bitim réew di rafetlu seen teewaay parce que c'est important que ñu rappeler ko daanaka convocation bi ay huit ngeen ko jot à onze heures journaliste yëpp ñoo ngi fii loolu di wane rek vraiment yitte bi ngeen jox démocratie yitte bi ngeen jox liberté yi ñu leen ci remercier au nom de tous les leaders di wax encore une fois à tous les militants sympathisants fépp fu ñu gisee presse bi nanu leen tàccul nanu leen joxal ndox mu sedd jox leen chaise nu toog parce que toog fii di wax ak àdduna bi yëpp ñoom ñoo ko waral te képp ku leen defal loolu defal nga ko Ousmane Sonko defal nga ko Khalifa Sall defal nga ko Habib Sy defal nga ko Déthié Fall defal nga ko Aïda Mbodj defal nga ko Cheikh Tidiane Youm defal nga ko tous les leaders de Yewwi Askan Wi di wax nag ni ndaje mi li ko li ko suuxat mooy li ngeen xam ni démb woowoon na ñu fële ci direction générale des élections parce que heure bu élection day jege si pratique la dañuy convoquer mandataires yi pour wàññu spécimen yi ndax couleur yi sigle yi tur yi ak tur yi ci nekk ndax méngoo na ak li ñu déposé gis ngeen débat bi nga xam ni jotoon na jóg bi conseil constitutionnel defee ñombe bi nga xam ni adduna bi ñombe boobu yéem na leen bi mu daggee suñuy liste ni liste suppléant mooy dem liste titulaire di dem bi loolu amee yenn constitutionnalistes yi yenn homme de droit yi ñoo ngi doon poser wu ay question comment ils vont faire ci liste Yewwi Askan bi d'autant plus que liste yi war dem élection législative dafa war am photo wu tête liste donc mu doon une équation pour dire des fois booy jël yenn décision yi il faudrait que ngay mesurer le périmètre de ses conséquences ses répercussions ci loi bi alors ko ki nga xam ni moo war tëddee ñaaxanaay war doxal loi bu fekkee moom mooy jël ay décision yuy ñëw du tordre loi loolu day yéeme et pourquoi mooy démb bi ma demee toog dañ ma génneel benn bulletin benn spécimen nga xam ni en principe dañ ni loolu mooy doon après bulletin wi yéen bi ñu ko tegee turu suppléant yi ñoo nekk ci bulletin yi yeewi askan wi ñu def ko amul photo tête amul turu tête de liste identifiant nga xam ni tey loi bi ci article R cinquante huit da ko prévoir identifiant yooyu benn identifiant nekku ci donc ngeen gis décision conseil constitutionnel ñu mu tordre la loi électorale ñu mu tordre le code électoral nga xam ni donc ñooñu bi ñuy jël décision ils n'ont même pas profondément réfléchi pour gis ni ñoo ngi doon jëm ci impasse ñoo ngi doon jëm ci ñombe parce que ñombe weesuwul nga ni huit listes yi nga xam ni ñoo war a dem sept yi daanu am tête benn moo ci dul am tête de moo ci dul am identifiant moo ci dul am photo wu tête de liste bi ñu présenté loolu ma ni leen lii lu muy tekki commissaire Ndiaye ni ma arrêté bi lañu suivre ma ni que arrêté bi ngeen suivre day ñëw léegi war remplacer la loi parce que la loi ce qu'elle dit elle est très claire mën ngeen ko lire ñëpp ci R58 mooy élection législative day am photo wu tête de mu ni non on n'est pas pour interpréter la loi ma ni que xanaa tey nga interprété wul yow commissaire Ndiaye la la fois passée bi ma fi ñëwee ba gis ñoom be Benno Bokk Yaakaar bi ngeen leen dee bëgg sauver yow ci sa bopp yaa toogoon di ñu jéem théoriser que Yewwi Askan Wi aller vers une liste incomplète à partir d'une loi boo génnee di ko lire tey R58 est là génne ko liir que et tu toi-même que la décision du conseil constitutionnel doon na décision bi nga xam ni dafa nekk du tordre la loi quand le conseil constitutionnel les sages prennent une décision buy tordre la loi dans quel pays sommes-nous bi ñu demee ba ngoon sa ma woo kenn ci ñoom mu ni ma en réalité ñoom danoo basé wu sur la décision 13E e du conseil constitutionnel en son considérant 13 décision 13E mooy la réponse bi conseil constitutionnel servir à Benno Bokk Yaakaar bi nga xamee ni ñoom dañu dugaloon recours pour demander que ñu éliminer suñu liste des suppléants ñoom bi ñu dugalee recours Benno Bokk Yaakaar pour demander ñu éliminer suñu liste des suppléants lii lañ ci waxoon dañ ni woon Yewwi warul am liste de suppléants parce que amatuñu titulaire te bu ñu amul titulaire ñu am photo te bu ñu amul photo kenn kenn warul bàyyi seen suppléant jàll loolu la Benno Bokk Yaakaar dugaloon comme recours contre nous conseil constitutionnel tontu leen ni leen la photo à elle seule ne suffit pas pour identifier et que am na yeneen identifiant yu fa nekk donc déjà même dans sa réponse la conseil le conseil constitutionnel commencé woon na tordre le droit soit xamul lu ci code électoral bi liiru ko xamul lu ci nekk wala soit nekkoon nañ di exécuter aveuglement benn commande commande provenant du président de la république et voilà aujourd'hui ci lim ñu yóbbee loolu moo waral bi ñu waxtaanee ñu ni nag li jot jot na te wolof njaay dafa naan buur bu xamul ni saay na nga ni ko ngi bàq ya donc fala ñu toll ak le président Macky parce que vraiment lii may wax sénégalais bu nekk mën na ko vérifier dama koy répété waat article R58 li ñu wax ni moo war nekk ci bulletin de vote bu war a teew war dem ci compétition dem leen ngeen lire ko comment on peut accepter dans ce pays maintenant que le conseil constitutionnel jël ay décisions yi nga xam ni jours après da ngay gis ni déjà mi ngi continuer di tordre la loi alors bi mu koy jël ku nekk xam nañ lii c'est bi mosul am ci Sénégal mosul am ci àdduna nga xam ne tout le monde dafa doon théoriser que la liste est unique et indivisible ñoom ñu ñëw kuppati ko kuppati ko ci bi mu dalee Benno Bokk Yaakaar parce que ñombe boobu ci Benno Bokk Yaakaar lañ ko defee parce que bu leen fàtteele bu leen fàttee dama koy fàttali tout temps que Dakar bi ñu koy rejeté la liste de Dakar suppléants yi c'était paritaire sa respectait la parité titulaires yi ñoo respecté wu woon la parité te pourtant bi ñu koy rejeté est-ce que kuppati woon nañu liste bi bi ñu koy rejeté toute la liste la ñu rejeté loo bi leen loolu dabee quinze jours après ñoom ñu jël liste benn Bokk Yaakaar kuppati ko bàyyi titulaire mu jàll laisser suppléants yi donc comment on peut laisser le président de la République Macky Sall une seule que loolu mën na continuer ci biir Sénégal moo tax ce qu'on a retenu en conférence des leaders mooy bon à tirer bi nga xam ni loolu lañ doon xaar ci man démb ñu koy wax BAT mooy Yewwi Askan Wi du viser le bon à tirer parce que Yewwi Askan Wi mënul viser li nga xam ni day tordre la loi Yewwi Askan Wi mënul nekk ci orientation bi nga xam ni président Macky sàll moo koy jël te méngoowul benn yoon ak loi bi ñu ko koy ko ci suivre parce que moomul réew mi moomuñu ëpp ñu fulla ëpp ñu fayda ëpp ñu fit je l'ai dit hier bi ñuy toog di wax ak moom ma ni que Sall mi ngi leen di yóbbu ci coono parce que li mu foog ni day dem du dem parce que fit ëpp ñu ko formation yu ñu jaar des formation dong il ne l'a donc fit ëpp ñu ko bu foogee ni nag à travers ces décisions la yëngale Sénégal yëngal Sénégalais yi ku nekk xam fulla ak fayda bi nekk ci ñoom muy ñu nekk bi réew ak bitim réew bu fekkee ni jàpp na ni jël conseil constitutionnel jël le ministre de l'intérieur ñoom ñëpp mu leen di dicté li ñu war def contre Yewwi Askan bi mooy tax élection war am nim ko bëggee ak ni mu ko xalaatee mi ngi juum mi ngi yóbbu sénégalais ci impasse parce que lii amul sénégalais bu ànd ak xelam sénégalais bu objectif sénégalais bu Sénégal képp ñor ku mën a ànd ci li président Macky Sall bëgg def bu fekkee tey les sages ñi nga xam ni ñoom ñoo war appliquer la loi ñoom ñoo war respecter la loi ñooy jël une décision immédiate qui tord qui ne respecte pa la loi et toutes les conséquences de ces décisions jëm encore sur li l'irrespect de la loi sur le non-respect de la loi R58 nekk ici ngeen xam ni kon réew mi mi ngi ci yoon bu dangereux et Yewwi Askan bi fera face on ne signera pas le bon à tirer parce que duñ ko topp ci joggati li nga xam ni mooy yoon donc loolu la ñu wax beneen mbir mi mooy lu mësul am Sénégal xanaa élection benn yoon lañ ko organiser tey ñu war jëm élection dugg pré-campagne CNRA ñaata yoon la def communiqué ci élection kenn mënu ko compter tout en CNRA day def communiqué est-ce que mos ngeen gis gis un communiqué bu CNRA bu gouverneur reprendre gouverneur reprendre communiqué CNRA def si ay extension yi nga xam ni le code électoral n'en parle même pas extension bi nga xam ni dara taxu ko jóg lu dul jéem a anticiper ci manifestation Yewwi Askan parce que tey il n'est dit nulle part que activité politique du am pendant après campagne mais ñoom ñëpp a nekk en activité politique Macky Sall ba élection locale yi ba ci veille élection locale yi Macky Sall la ngi pré-campagne mi ngi ci ay tournée économie rek ay inauguration ak ay yu kenn xamul yéen ñëpp a ko fekkee alors pourquoi cette fois-ci cette nouveauté ba gouverneur naan day génne un communiqué pour reprendre communiqué la donc ngeen xam que danoo nekk ci entreprise une entreprise qui ne passera pas waxuñu dara ñuy jaay ay ruube naan suñu euh, manifestation bi ñu prévoiroon le quinze arrêté nañ ko président Macky Sall ñëw doole ci karaw ni finalement sax ci xam ni karaw ni finalement sama tournée bi ma bëggoon def Casamance bàyyi naa ko dafa ñemewul dem Casamance c'est aussi simple que ça donc yooyu yëpp pour donner benn tonus donner benn suite au communiqué du gouverneur ñun nag dugal nañu depuis le vendredi passé suñu demande par demande suñu information de manifester pour le vendredi 17 hier à 15 heures on était au commissariat man ak Cheikh Tidiane Youm ak le président Khalifa Ababacar Sall woo nañu foofu pour dégluñu ci manifestation ñu xamal leen ni li ñu taxoon jóg keroog moo ni indiwaat fii diggante bi nag am na lu ci ko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 d'aller d'aller d'aller d'aller aux élections comme pour dire que ñoom danoo nekk ci position bi nga xam ni suba lépp lu nu bëgg def mën nañu ko def bu ko defee le président Macky Sall jëm ci bénéficier wu donc ñu répéter que li ñuy taxoon jóg keroog moo ñu taxa jóg am na lu ci dooleeku mooy encore le conseil constitutionnel todd na loi bi à travers cette décision donc on le encore une fois Yewwi Askan Wi ne signera pas le BAT Yewwi Askan Wi ne se laissera pas faire Yewwi Askan Wi ne laissera pas Macky Sall dans ses manœuvres ni le ministre de l'Intérieur ni le Conseil constitutionnel les sept supposés sages que le Cheikh Tidiane Loum a d'ailleurs appelé noo ko tuddee déjà ah, les pyromanes les pyromanes Yewwi Askan Wi ne le laissera pas faire et on va qu'il le veuille ou pas faire notre manifestation du 27 du lu di qu'il le veuille ou pas Yewwi Askan Wi ba ba na Yewwi Askan Wi va participer avec sa liste nationale sinon il n'y aura de d'élection dans ce pays kon ñuy woo mbokk yi ku nekk foo ne nga dégg loolu xamee que noonu xam ni président Macky Sall dafa bëgg jël buumu jàmm takk ko suñuy baat te Sénégal jàmm amul fi danoo yàgg bañ danoo yàgg fippu bañ ak fippu moo ko teg ci bopp réew mi bañ ak fippu moo tax tey mu doon président de la république sinon du ko doon masodoon c'est le seul à avoir fait trois ans dans l'opposition 2008 fin 2008 la ñëw 2012 mu yegg si pouvoir donc xamul en réalité rythme opposition xamul rythme bañ xamul rythme porter ay principe xamul rythme porter la démocratie xamul rythme porter les libertés parce que ça a été extrêmement facile pour lui de sorte qu'il pense que lépp lu mu mën a jël mën na ko génne et day yomb et loolu la koy di bàyyi yéen ñi ñuy waxal yéen a war a jóg xamal que ni du demee noonu parce que demeewul woon noonu ba ngay yegg si demeewul woon noonu avant 2008 président Abdoulaye Wade di yegg te du demee noonu en 2022 ni en 2024 mbéjum kanam boroom moo koy fajal boppam te tey le président Macky Sall bépp Sénégalais ak bépp Sénégalais foo mën a nekk yow la mbéj ci li nga xam ni